mais gars yi tey gis ngeen paasu Odegaard bi non mais Chelsea nag tey Arsenal newal na ko doole humilier ko complètement quel match incroyable cinq salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ku ci nekk seen ab tur ak seen sant Odegaard man wóor na mu wóor na ni ci club yu mag ñooy tudd ci monde bi yëpp fu mu ci demoon dafay titulaire mën na fa titulaire ba ne boppam saa yi ay 200 ballon man man rek daf ma ëlëm mais vision de jeu gis ngeen passe bi. ba ko saakaa joxe bal bi automatiquement man gis na loo xam ne ndeysaan <laughs> nga mën a woon sax moom ndeysaan dina ko gis te moom mu ngi ci terrain bi la mu paas benn White rey na défenseur u Chelsea yëpp lan doon xaar fële moom la joxe inverse bi Ben White moom it reyaat gardien de but bi ak défenseur yi nag bal bi ba muy ñëw danoo foog ne da koy paas nekkee bal bi ci kaay la ko dóor man sax dama jàpp ne bal bi paas na ba léegi mu ngi noonu mais petit filet bi la ko làq quel match bee nekk noonu yeneen bii yi gën a tee rafet kookee di Havertz damay ragal mu jëli ci palaasu kookee di Gabriel Jesus mu ñàkk ci pointe bi nag Havertz ba muy nekk Leverkusen daanaka ci pointe bi la gënoon nekk à l'aise fa la doon wane boppam wala soit euh, Chelsea daan na ko teg foo neuf mais lam waroon wane dëgg dëgg dëgg waneew ko def ko neuf fixe rek mu ngi noonu malgré il est mobile dafay déplacé wu et tout mais teewut jour la boo xam ne nii bu amee confiance mën na wane dara tey double la laal contre club ancien club bi nga xam ne moo leen mayoon Ligue des champions double l'unique but ba ñuy jël Ligue des champions bi premier but bi boog mu ngi noone waaye it yamaatuñu foofu sunu international Sénégal Nicolas Jackson dugalu tey seen club bi mënuñu woon <laughs> ñu woon créer occasion yu bëri nag monopole bal bi naa la ko yore woon moo doon buum di buum bi ne damay avancer ne damay arrière. ne damay mm. temporiser ñu gis retouru Thomas Partey boo xam ne nii vraiment retour parfait retour gagnant ci numéro 6 bi Sentinelle dar Kokédi Declan Rice ak di Kokédi Odegaard seen duo bi nga xam ne début saison bëgg léegi ñu wane boobu seen bopp ma leen xaar ci commentaire yi est-ce que Arsenal mii mën na jël Premier League bi ou pas en tout cas City dese na ko match jeudi te en plus am na match de retard Arsenal jiitoogum na Liverpool topp City ñëw ñu ngi xaar si classement bi ni muy changé. en fonction ci temps bi ak match yooyu en tout cas cinq bis à 5 buts à 0 la Arsenal door ko kii di Chelsea néewal ko doole wan ne ko jamono ji moo ko gën a diis Chelsea nag ci ay difficulté la ne keroog 6 la door koo di Everton daanaka 6 yooyu yëpp benn but d'avance lañ ci amati nag Arsenal yàq na 5 yëpp ci goal différence mu ngi noonu ne gars yi loolu nekkoon match Chelsea ak koo kii di Arsenal. jàmm ci yéen ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen ko gisee képp koo xam ne nag abonné goo suñu chaîne YouTube duggal suñu bio TikTok di nga gis logo YouTube nga bës ko mu yóbbu chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan foofu suñuy vidéo jaajëf. eh, eh aujourd'hui aujourd'hui <laughs> Eh ouais, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre. Daïga Eh, le monde parle Eh Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Daïga Eh, le monde parle en couille. Atravessava atravessado. aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Eh Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Eh, le monde part en couille. Non Tu es eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est. Eh, le monde part en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 نشيطك والله بتاعتي يعني ابو اللي جابك على يا فضل الله كمله كمله لا كويس كويس الف سلامه يا كابتن لازم نروح المانيا لازم نروح المانيا عملنا فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال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 نشيطك والله بتاعتي عن ابو اللي جابك على التليفون يا عم والله بالله ألف سلامة يا كابتن كويس كويس ألف سلامة يا كابتن لازم نروح ألمانيا عمل له فرمان يا كابتن كويس يا محمد تعال تعال تعال تعال تعال يا شوية